إله إلا الله لا إله ku am yéene yu rafet rafet la. ku am la ku am ay yéene yu rafet rafet la. ci place bi ci place bu yàggul rek. bu yàggul rek. am na lu mu wone. am na lu mu wone. ci taaru. ci taaru. Sénégal. Sénégal. jaareele ko fii. jaareele ko fii. kon naka ñëpp a ñaanal rek. kon nag naka ñaanal rek. fa mu bëgg àgg mu àgg. fa mu bëgg àgg daal mu àgg fa. lii rek la. lii rek la. ku ñu jàppale yàlla jàppale la. ku ñu jàppale yàlla jàppale la. lii la sang bi waxoon. lii rek la sang bi waxoon. Serigne Fallou waxoon na ko. ndax Serigne Fallou waxoon na ko. Senghor. Senghor. ñun jumaa ji la am. ñun daal jumaa ji la ñu am. ku ñu jàppale si jumaa ji. ku ñu jàppale si jumaa ji. ah ñu jàppale la ah, ñu jàppale la. ñun tamit noonu. ñun itam noonu. ku ñu jàppale fii. ku ñu jàppale si place yàlla bii. ah liggéeyu sang bi. ah liggéeyu sang bi. ah mission sang bi. ah mission sang bi. ku ñu jàppale ñu jàppale la. ku ñu si jàppale ñu jàppale la. te itam. ñun jàppale bi ñu lay jàppale. bi ñu lay jàppale. wallaahi mooy suñu ñaan ci place bii. ndax buntu ñaan bi yàlla ibbi si jamono bii mu ngi nii. te amul feneen itam. ñaari bunta ñoo moo am. benn baa nga kaaba ga. ca penku ba. ñaareelu bunt asamaan bi yàlla ibbi. mooy fii imaam bi toog mu tiim ko nii. kon nag mbir yi jeex na ñu jox saydi Mbuub mu daldi di présenter délégation bi. <laughs> mbooloo mi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi di Seydina Muhammad ñoo ngi nuyu. xalifa bi di cheikh sayid mouhamadou nabi géey ibnu cheikh mouhamadou góor gi seeni géey xalifatullahi fil ard muy ab xalifaam toog nii doon yëkkati ay kàddu ñoo ngi ñaan sunu boroom gën laa yàggal gën laa taxawu te itam sa yéene ci barab bi yàlla defal na ko nuyu la nuy imaam waaye nuy tam njabootu nabi allah gi fi teew gépp kii ñu àndal ñëw nag mooy seex Alassane Sène soppeb Seydina Muhammad euh, muy jëmm joo xam ni bëgg gi mu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax bi ko yàlla joxe ñaari doom yu jigéen mu mu tuddee leen yonent bi otom yii mu yor yonent bi la leen tudde moom sang bi wax na ko barab bi mu toog bi mu demee bay laaj réew mi ngir bëgg a doon président de la république programme am projet bi mu amoon yaakaar naa ni mosquée divinité ku xool ko xool taxawaay bi ak ni mu ko ni mu ko def da xam ni barab bii am na fu mu ko teg te bàyyi na ko xel xalifa bi wax na ko fii du fi gan bii lay doog a jóge voyage bi mu ñëwee daf ni barab bi lay njëkke ngir jooxe fi jumaam mu jiite coalition jàmmi réew mi nga xam ni ci jàmm lay dox ci salaam képp ci lay dox loolu rekk ko yitteel xam naa ni li ñuy def mooy bàyyi ko ak kàddu gi ndax ànd naag mbooleem ñi mu baaxoo di àndal muy staff bi ñi nga xam ni ñoo nekk ci coalition bi ñoom ñëpp ñëw nañu ale ndaw mi toog mooy caatu Abbas Ndaw docteur kii mooy caatam muy ab jëwriñam nekk ci liggéey bi Assane Diallo itam moom itam ci biir ci la nekk Euh, Assane Sy Mansour a ngi nii di conseiller spécial bu naa ma Saw moom itam mu ngi nii toog professeur nga xam ni moom itam di jàngalekat bu mag di boroom xam-xam moom it bokk ci coalition bi moom it mu ngi toog Ibrahima Guèye moom itam coordinateur moom it mu ngi toog Elaas Ba mii nga xam ni moom itam euh, bokk ci mbir mi ci coalition bi moom itam mu ngi ci biir bari nanu waaye ñii rek laa mën a jukki pour nga xam ni ba ci Seydina Ali mee nga xam ni Darul Moxti fa la nekk moom itam nekkal ko fa bari na nanu ñoom ñëpp ñëw nanu ngir ànd ak moom fekk si julli gi nga xam ni sa jur wa baax ma moo wax ni ñaari rakk rek ku ko fi julli bu ëllëgee mën naa doon saglay sa digg ak sa borom muy borom boo xam ni tedd nga gi mu tedd ñëpp xam na ko damay bàyyi kàddu gi ak moom mu yëkkati ko mu nuyoo euh, xalifa bi ak ñi fi nekk ñëpp auzu billahi samil alim min asheytaani rajim wa afdalu salaati wa atammu taslim ala seydina wa maulana wa habibana muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahimahullahu rahmatan aw wa salawatullahi alayhi wa sallam mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi yeesal doom gi ñu doon ci yow di yeesal cofeel gi nu am ci yéen di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu waale imam di ñaan yàlla mu yàggal taxawaayam ci seen wet bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla du guleet ma ñëw ci bërëb bi ndax yëg-yëg na fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab te loolu le daf ñoo dal ci bërëb bi ba ñu nekkee tuut tànk ba léegi li ma indi nag sëriñ bi mooy daal di yeesalaat sama digganteeg jumaa ji yeesalaat sama yëg-yëg gi ma am ci jumaa ji waaye ba ca des mooy wax nga ko léegi amoon naa projet pour def fi benn shaada ci montagne bi euh, loolu nag dafa yàgg ci man yàgg bi mu yàgg ci man ma am ci tamit ay yëg-yëg lu mel ni ñu ne ma daanaka suñu ko fi defee ku fi rombati xool jumaa ji xool ko sa ajo dana faju te loolu nag sa waaju wu tedd mu ko liggéeyal sunu borom ba loolu le di rogalaan ci réew mi mosquée de la divinité bokk na ci chet d'œuvre yi gën a mag tey ji ci àdduna ay nit ñu bëri dëkkuñu Sénégal waaye suñu gisee position bi mu nekkee rek dañuy xam ne c'est une position stratégique mystique moo tax ñu mu ñu war a góorgóorlu réew mi dans le cadre du tourisme religieux mu bokk ci symbole yi ñu war a visiter ci àdduna bi waaye nag sëriñ bi dama wax ne yéene boobu ma amoon euh, duma ci xaar état li ma bëgg mooy ñaan la ci sa sa sa sa sa sa sa ndigal ngir xale bi nga xam xale yi nga xam ne sénégalais lañu maa ngi waxtaan ak jom laataa may ñëw ci réew bi ñoom xool nañu structure bi mu war a nekk en bronze ñu xool ko saytu ko ba léegi war nañu am benn réunion soo joxee ndigal ñoom ñu ñëw commencé xool place bi xoolaale naka lañ koy defaree ñëw samp ko wutal ko ay làmp solaire yoo xamante ni fu vingt heures jotatee rek dafay tàkk ba six heures du matin mu fayaat te loolu dama ko bëgg a def ndax sadaxa jaariya lay dekk ci ñoom ci man ak saba njaboot lu mel noonu ku ko def amatuloo dara looy wërati aussi sa àdduna ndax bokk nga ci ñi doxal ndigalu sa waaju wu tedd ci diggante nit ak boroomam summa dana fa tadalla fa kaana xaaba xawsayni na loolu daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa waajur di ko di ko yeesal saa su ne ci xolu nit ñi loolu la ñu bëgg a donc sëriñ bi maa ngi lay santaat di ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay ci réew mi sëriñ bi ñi la miin ak ñi la miinul ñëpp dañuy rafetlu sa kàddu rafetlu sa taxawaay rafetlu sa discrétion rafetlu ni ngay jàngalee nit mu yaru ci àdduna koo toogal yar ko soo waxee ba daaneel nit day defaraat toogaayam ndax yow ni nga defaree sa bas waaye nag bettuñu yitt ndax sa waajur wu tedd wi ku jaar ci loxoom nii rekk nga mën a mel maa ngi sant ñëpp di gërëmaat ñëpp di am mbégte mu rëy ci teew fi alxaqu min rabbikum fa man shaa fal wa man shaa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mën naa laa wax ni ci kanamu mbooloo mi yépp sa projet boobu si jumaa ji jox nañ la ci ndigal ndaxte fii lu kenn du kenn ci état ñëw na fii am yéene bi nga fi am bi jumaa ji wàccee fii ax léegi yàgg na bii ko fi sang bi liggéeyee ax léegi it yàgg na waaye waa réew mi dañoo xamul dayooy jumaa ji ba léegi wax nga ko sànq wallaahi xamuñu ba léegi dayooy jumaa ji mu ne jumaa ji amul benn dendandoo ci kaw suuf lu dul kaaba ga ndax na kaaba ga wàcce woon ci sunu maam aadama bii noon la wàcce ci sama jëmm man sanga bi man ma nekk xalifa yàlla ci kaw suuf nan na aadama nekkee woon xalifaab yàlla ci kaw suuf man sanga bi noonu laa nekke xalifa yàlla ci kaw suuf looloo tax aaxiru zaman ngir yàlla sauver nit ñi loolu rekk a tax yàlla wàcceel ma juma man sanga bi sa yéene nag yàlla naka yàlla mottali ni nga hmm. ko gëmee ñun itam noonee lañ ko gëme àddina ñépp ay daw ñëw ndax yàlla moo leen di orienté ñu daw ñëw fii taar bii nag bi nga am yéene taaral fii wallaahi yàlla dina ci ànd te yàlla ànd na ci xam nga lu tax yàlla ànd ci ndax plan jumaa ji jógewul ci nit ci yàlla la jóge kéemtaan boobu la jumaa ji def ci xol yi muy rayonné à travers le monde te ñi ñi xamuñu lan la lumière bi bii fiy jóge di wër monde bi doo ko gis fenn àtravers le monde xanaa kaaba ga kon ça une première ñépp taw ñépp daw di xool sa œuvre tàmbalil rek amul benn problème le titre là ñun ñoo ko moom de la mosquée et ses environs ça nous kenn du ñu bundu fii mën nañ fee liggéey lu ñu neex ci palaas bi récemment mbooloo mi ñoo investir si ay parasol c'est visible mu ngi fii ay parasol la pour xeex chaleur bi nit ñi fu ñu mën a toog toog ci kër jaamu yàlla sànq dama doon réfléchir ci baatin bi yàlla di def te nit ñi xamuñu ko mën ngaa liggéey benn mbir doxee fa siiw à travers te am nañ ci yaakaar loolu daal moo am ci place bi daa mel ni aimant boo xam ne dafay xëcc xol yi looloo tax dama yàgg wax toujours ne ku amul yëg-yëg yàlla nekkul ci yow yëg-yëgu jumaa ji ku ko amul yàlla nekkul ci yow ku yàlla nekk ci yow faw nga am yëg-yëg si jumaa ji moo xam dangay romb séen ko moo xam danga nekk ci avion xool ko ci ibloo yi gis ko moo xam da jël bato jaare ci ndox mi séen ko en plein nga gis soorool yi sa kaw mu mel ni dafay tegu ci ndox mi léeg sax mu na yi gis lu nu mel. te nag duñu xam fa mu ne. bari na. kenn si ñoom. kenn mas na wax le roi. mas na wax ne ko gis naa. une moske au bord de la mer soo ko mënee réaliser nga réaliser ko la grande mosquée de Casa en plein mer presque ñoom dañoo sëq ci ndox mi def fa jumaa ja visité naa ko dem naa ba ci sous-sol ba benn aquarium moo fa ne sous forme de tapis lu yéeme wante c'est pas la baatin bi yàlla di wan ñi ñi ñu koy seet ci àddina bi fu ne fii la kon nag ñun jàpp nañ la yàlla na la yàlla jàppale te yàlla dolli la jàppale soo paree daal ñun pare nanu soo paree rekk ñun pare nañu bu yàgg nag toog nag di xaar macha allah macha allah sa œuvre boobu su yàlla dogalee mu réaliser wu attraction lay doon ñépp ñooy ñëw di ko xoolse kon nag jërëjëf yal na yàlla fayal ñu la ñëw nga nag ci bés bu màgg a a màgg jóge voyage ñëw ne jumaa ji may julli pour ubbi sama campagne mosquée de la divinité koy defee yàlla mën na la see may ndam te yàlla it naka yàlla def yàlla na la yàlla may ndam macha allah jërëjëf macha allah macha allah ibbi nañ xabru Mawlana Mohamed Seyni boo noppee rek nga dem fa ziyaari ji ñu nangu ñaan amin amin amin نصف من الأفات وخلي waaw amiin bisimilah allahumma salli wa sallim yal na yow defal ni ma te doon lay taxaw jaasi na xamante ne subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin yal na yàlla may ndam amiin fatiha amiin ya allah ajjuma ji ñëw imam Ndiambe Pène mooy doon sunu imam yal na yàlla moo tali